ngi lay ziar mën nga présenté wu. Modou Mamoun Gadiaga président commission logistique Touba ca kanam. sëñ Modou Mamoun tey jii Touba nañ bis bu am solo di leen waajal liggéey bu am solo muy assainir Touba ngeen yore lépp lu jëm ci wàllu logistique liggéey bo am solo boobu naka ngeen ko doon saytoo ba tey jii ngeen am ci résultat bi. waaw euh, ñoo ngi lay nuyu monsieur Faye di la ziar di nuyu seen organ di leen sant ci ceewaay bi ngeen xam nga teew ngeen ko fii tey ci liggéey bi ñuy liggéeyal sëñ Bamba xam nga logistiquement buñ ko waxee mooy lépp loo xam ne dafa jëm ci matériel wu Touba ca kanam matériel boobu nag mooy def liggéey bi alors pour ñu acquérir loolu li ñu njëkk a def mooy euh, dañu xool li nga xam ne mooy besoin yi ñu def expression en besoin bi ñu defee expression en besoin bi ñu liste ko li ñu mën a acquérir ñu acquérir ko li ñu mënta acquérir mooy li ñu def nii tàllal suñuy loxo mbokku taalibe yi macha allah dimbale nañ ñu nag jàppale nañ ñu ci matériel roulant et ce matériel roulant bi ñu jàppale jàppale nañ ñu ci li ñuy wax euh, machine chargeuse niveleuse tractopelle jàppale nañ ñu aussi ci ay euh, compacteur alors fekk na nag Touba ci kanam am aussi ces chargeuses ndax am nañ ñaar benn bi ñoo ko jënd bu bees tàq mais benn bi aussi CCBM moo ñu ko jox addiya bu bees tàq am nañ hydrocureur boo xam ne dafay curer ay kano mais aussi dafay def vidange de fosse yooyu yëpp bi ñu ko jëlee nag ñu boole ko ñu fas yéene ànd ci liggéey bi ngir mën a liggéey liggéey bi. bu mel ni kon tubaa ca kanam liñ doon sëntu ci liggéey bi am na lu ko kawe seen jor waaw xam nga Serigne tubaa moom boo ko dee liggéeyal te dëggu moom ci boppam moo lay gàttandul boppam ànd ak yow. loolu la ñu sëriñ bi def daf ñoo gàttandu ànd ak ñun gëm nañ ne liggéey bi sëñ Bamba nangu na ko loolu moo tax li biñ ko wootee gëm nañ ne taalibe yi sëñ Bamba yi nañ ñu fekk si moo tax sunu njort dañuy yaakaar ne sax du amagu état atteindre guñu fañ fañ fañ fañ war a egg waaye nag ñoo ngi ciy gën a rafet njort incha allah en tant que ay taalibe sëñ Bamba. boo doon sant wala ngay lancer message wala soññe euh, ci ñi nga xam ne ni ñooy euh, mbokki taalibe yi contribuer ak ñi bëgg a contribuer lan leen di wax. Touba ca kanam ca kanam. te ngir mu dem ci kanam ndun mbokk taalibe ñooy àndandoo yóbbu ko ca kanam nañ maase àndandoo jàpp ci liggéey bi te xam ne dañuy liggéey pour le développement social et économique de la ville de Touba te loolu dafay jëm ci biir Touba jëm ci nit yi Touba kon ñoo ngi leen di tàllal suñu seeni loxo di leen sant di leen gërëm di leen wax ne liggéey bi mi ngi nii yéen rek ko moom seeni ñaar téeméer moom ci wàllu boppam moo def luñ fi mën a def ñaar téeméer yooyu ñoo def poste de santé yi ñoo def daara yi ñoo def eh, adduction d'eau bi ñoo def lépp loo xam ne ñu ngi koy def ba ci assainissement bi lépp luñ fi daj rek yéen la ñoo ngi leen di sant ñoo ngi leen di gërëm. question bi ñu mujjee mooy ci wàllum matériel logistique bi ni nga ko waxee gis nañ ci seen affiche am na ci ñoo xam ne ni sax mën nañ ne bon bokkuñu ci yoon wi gis nañ ñu def seen contribution able nañ wala ñu maye loolu itam lan nga leen di wax ci côté boobu loo ciy leeral. ma man nga répété waat question bi ndax. maanaam ci wàllum collecte logistique yi ak fonds yeg yooyu gis na nañu ñoo xam ne nii euh, xëy na weneen yoon lañ bokk waaye gis nañ seen apport ci Touba ci kanam moo xam dañoo able wala dañoo maye wala ñu def leen loolu itam loolu ciy leeral ñi nga xam ne contribué nan alors que sax bokkuñu ci yoon bi. man damaa jàpp ne ci yoon wi lañ bokk. pourquoi parce que mouridisme n'est rien d'autre que l'islam sëriñ Touba dafa doon jullit ba pare tegu ci yoonu njullit gi jaaree ci li nga xam ne moom la Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñun ñëpp benn lañ murit bi tiijaan bi xaadar bi ñun ñëpp benn lañ ñoo bokk di liggéey ci liggéey bi tey bu subaa su fekkoon ne ñu bokkuñ ci yoon wi dañoo def nangam ca kanam di liggéey tey woote nun waa Touba ca kanam danañ dem fekk si kon liggéey bi benn la nous sommes un indivisible ndax ñoo bokk jóg l'islam bi